Koungheul fils de Zallo Boubacar Ñaafi jaar Ama Evans Thiat borom Yoff Thiat kii borom Bawol parce que Touba Toul moom Bawol la mais Thiat ci loone waa sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu wér di waajal bés bi rek incha allah waaw. ngeen di bëri drapeau Papa Sow Siteu loolu lu muy def ci yéen. waaw loolu li muy def si ñun mooy si que ni ñooñu ay mbër leen am lu liggéey si làmb ba yàlla def tey jii nii ñu tudd leen suñu drapeau. day tax ñu gën góor góorgóorlu rek ndax ñun tamit ñaan nañ yàlla ëllëg bëreek ñoom. waaw ñaan nañ yàlla bëreek ñoom kon. yaa kii ku dàq bëri. maa fils de Zalo bàyyi naa gars yi ñu ziise. waaw ki dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam. loolu li nga wax. ki dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam ñun ñaar. fils bëgg nuyu naa la. waaw fay naa la Babacar. ci loo ne. waaw sant bu baax. drapeau bi li ma laaj laa koy laaj mu def ci yéen Papa Sow Siteu. waaw sant rek xam parce que ñoom ay référence lañu xam nga ay idole lañu parce que dañoo def si lamb loo xam ne waaw bu ñu leen tuddee drapeau rek loolu yoon la xam nga waaw di bëggee ñëpp di nuyu sama adversaire caatu ngéwél xam nga di ko wax na waaj bu baax a baax man maa ngi waaj. nee na day bàyyi ñu Cissé. dàq bëri gi waaw coo jibul na gars yi Cissé man damay bëri damay xeex. man samay combat du yomb. caat mi ñu mën a xeex ak moom. caat mi. waaw incha allah bu ko sax bu xeexee man ma duma ko. te kii nii damay ñëw pour duma ko. dama ko duma ba mu réglé. kese nga ci taamu. li ma la wax fii maa la ko wax fii notel li ma koy wax lu ma gëm la. maa yow taxawal nga dëggal sa bopp bul yooru. Ah. ñu bëre làmbu xale wóor na yàlla ma jàpp la duma la ba nga ba wala fi. boo yow xaaral ko ba jox ko waa Touba Touré waa Baol. ma koy duma kii man moom bu soobee suñu borom. yar la yor de la ma la wax da kii de kii man man trophée yi ma jël si xeex. da di bàyyi ili wala da di kan bay théâtre itam kii caatu ngeel dimbar. wuyu ma Medina gars yi kenn nax stade Iba Mar dama fa ñëw jël fa trophée bu dee xeex xeex kii du xeex man maa ko daa xeex fuuf hmm. barke Seydina Mohamed bu xeex ma dóor ko mu daanu. Ah. barke Seydina nga waat de. Seydina Mohamed laa gis ne bu bëree ma dóor ko mu daanu. mos ngaa dóor mbër mu daanu. samay lamb man dama la yóbbu ardo dama la yóbbu nga ñëw man yow yow laay dóor mu daanu moom moom dóorul kenn mu daanu kon xam nga ni kii ma dóor ko mu daanooy gën a gaaw man samay combat man damay xeex damay bëre sama combat yi booy bëri dama la yóbbu arduñ ñëw ma jàpp leen daan leen ku ma si xeexal yaay bàyyi yaa ngi dégg moom kii entraîné wu liggéeyul dara yow man maa ëpp doole yow maa la ëpp doole na yàlla maa ko kii kii dama ko sax kii nu na liggéey liggéey woo kii gën a placé rek groupe whatsapp mu ngi toog di wax di ratatari man li ma la ñaan na nga taxaw digal sa nijaay yow ragal nga. kii xam nga lan mooy coow li kii day réer man mbir nee na whatsapp man bi ma bi combat bi taxawee laa désinstallé sama whatsapp. téléphone simple laa yor barki Seydina Mouhamed simple laa yor. kii maa gën a pare fépp. barki Seydina Mouhamed maa a pare fépp. Hmm. kii bu nu weetoon bu nu woon contrat moo moo nu boole rek moo tax muy wax may wax. mais su ngeen wéetee ci rok nga lijjanti ko pour yow. da nga may li ma eh. gém gému ko. kii li muy wax nii. barki Seydina Mouhamed li ma gém gému ko. te heure bi suulee heure bi laay xaar mu ajal kii li muy wax da yow lay nax kii moom keroog bi ñuy def signature seen fële la li TV laa jël man cundum maa ànda te bi ma génnee dama ko doon jéem a agressé kii ta comment. agressé xew yi xew yi nag kat. déglul comment la àndal kii barki Sëriñ Bamba Mbàkke bu nu ni bu nu jaadaloon ma dërëj ko léegi fët fët. kii tapet la. non xam nga nu ngeen di. Babacar kii dëkkul Touba Tour réew comme li wax noonu man dama ko ne bu la neexee ma gën sama xaalis jël la taxi yaa ngi dégg ñooñu dañ ma fekk si foofu noonu sama koñ la man sama lépp grand bi laa ko def Sanzala maa ngi bëgg ñoom grand ñoom jili ñoom bon waa waaw waaw Sanzala fay ñëw teewoon foofu noonu eh, kii li ma kii li ma gën du ko gën xaar ñun ay mbayaar lan gëmuñu ay Sanzala kii Sanzala gu muy wax Sanzala ka fa jiite Boubacar Sonko sunu grand la kon kii ah, xam nga kii bu ma ay seen ah, sala day xaar. wuy ma wuy ma Babacar. bàyyil dama lu ma leen di wax combat bi le premier février incha allah rabi dañuy ñaan yàlla fekkee ko tal fekkee ko te tal ko que le meilleur gagne mais nag commencé ci bismillah jeex ci alhamdulilah rek te mu bañ a am benn violence tamit nag ndax promoteur bi Boubacar Niang moom jàmm la ci bëgg. da ngay déglu ma wala xam nga leen dafa am. CNG laay loolu man li may wax CNG message nanu bàyyi ñun ñaar ñu def yëfu bu xale. kii non non nan nu bàyyi avant lamb ji ñu def yëf déglu ma rek. nag am nay règlement. yëfu kenn def lu ko neex. nan nu bàyyi loolu seen du ko nangu. bu ñu tëjee barrière yi bu ñu moom ñu bëre bëre xale. arbitre arbitre bu soufflé eh, loolu amul yëf yi xel ak yëf yi màgg arbitre bu soufflé ñun ñaar ñoo fay ko kontaan ma wax di profité sa bés la yow loo jënd doyul te xam na ni yow yaay borom Ndakaaru Njaay la futur président mooy loolu kii combat bi xam la si wéeg galaaj la si wéeg te bu galaaj galaaj maa ko man xool man pare de man pare eh, ma ko de Ndiaye waaw parewu ma. parewu ma de Babacar barke Seydina Mohamed. Eh, barke Seydina Mohamed laal ñu ne. Eh, wu ma eh. barke Seydina Mohamed. barke Seydina eh, di ma déglu Babacar waaw da ma déglu wax nga pare barke Seydina Mohamed maa moom xool igri igri yof igri yof bu taxee seen ngem da ngay déglu ah lii du lamb lii du lamb lii du lamb lii du lamb de da nga may déglu ma man maay taxaw acca léegi kon gars yi noonu la demee le non non non non le non igri yof igri yof bu ndey ñoom ñëpp igri yof igri yof laa wax igri yof bu ndëgee taxee seen ngem ñoom ñëpp barke Seydina Mohamed parfait gënu ko ma daana ñoom ñëpp